حق البكاء على سادات أموات تبكي الأراضي عليهم كالسماوات أبكي عليهم وأرجو في البكاء غدا رضوان من في غابوا بالحلاوات يا لهف نفسي على فقد الأكابر من غابوا لرب دعاهم للعلوات تبكي الليالي عليهم الحمد لله waaw kay sëriñ bi ñu ngi lay ziara di rafetlu sa teewaay ci bis bi waaye ñun ñi nga xam ne ñoo féetewoo alxuraan ji dafa fekk ne mag ña seen lépp alxuraan la woon am rek ñu ko amee ci alxuraan ci barkeb alxuraan sëriñ Touba. wax na ko lu bari ci mbindam waaye sëriñ sàmba Kanni mi nga xam ne moom la ñuy fàttaliku tey euh, ñoom la leen gënoon a ñor ci seen adduna mooy ak jaamu yàlla kon bu leen di fàttaliku rek saa ne dañuy xool côté bañ gënoon a suivre lañ gënoon a bëgg ñu jiital ko ci fàttaliku gi ndax yi ci des yëpp gan ñi di ñëw di ziara ak yooyu yëpp matal kóllëre la ak gëj a gisante gi waaye nag fàttaliku sëriñ bi moom ci bisam dara ëppalu ko ci solo njàngom alquran mi dégg nga ak salaatu ala nabi salawaatu ala nabi yi ñu def lépp ngir ñaan yàlla dolli koy leer ak nag wan xale yi ne ndekete ñoom kan mboolem euh, seen àgguwaay booba ci yàlla ak seenu kawe dara mayu leen ko lul ne dàkk yàlla rek te yàlla nag boo ko ne dàkk dangay ngay bëggëm ak bëggëm nag dara jiituwu ci alquran waaw dara jiitu ci alquran ndax yonent Muhammad alquran bi muy wàcc ci kawam daana sonn lool ci dikkin wi ngir diisaayu alxuraan suñu borom moo ko woyefalal ba mu woyef ci ak wàccam ci moom waaye gis kenn ku ne xam ne coono bam ci daan toggoo tey li njëkk a wàcc di iqra kon daal léppi eh, bis bi rek ñu bàyyi xel ne wax dëgg yàlla lépp am solo waaye dara ëpp ci solo nag alquran ji nga xam ne ñu ngi koy taxawe di ko jàng ci anam gu sel jàng nañ fi ay kaamil yu bëree bëri ba tey ji rek fi ne nii jàng nañ juróom-ñeenti kaamil léegi nii ci suba ak léegi te xale yi nga xam ne ñoo ko jàng ñoom yàlla dafa dogal ñoom euh, dañoo set wicc ci bàkkaar te it di xale yoo xam ne yu sell lañ jàng rek yàlla mën na ko mën nañ ci am yaakaar kon daal ñu ngi ñaan yàlla dolli ko ay leer moom sëriñ bi ñuy fàttaliku waaye jikkoom yéeg mbooleem yi nga xam ne làmboo na ko fan yëpp ñu ngi koy waxtaane ci rajo yi ak di ko fàttaliku ba yaakaar naa lu ci mënta roy rek defe na njaboot gi dégg nañ ko te ci ndimbalul yàlla bu ñu demee ba war a def cérémonie bi daañ ci waxtaanewaat leneen waaye ginnaaw jamono ji nga ñëw moom li li ngay laaj rek mooy ci wàllum njàng mi loolu daal Cheikh Mourtala yaakaar naa loolu lañ ci mën a jàpp lool lañ mën a jàpp ci bis bi nañ njàngum alxuraan mi moom mboolem njaboot gi ñëw nañ ànd a xale yi nga xam ne ay dongay daara lañ daara yi sëriñ jili bu so ji di sësu si mi sàmm kan ci lañ jógee wax dëgg yàlla def ko ci anam rafet ñu ñaan yàlla nag jotale ci yool ba sëriñ Massamba Kanni ak euh, ay rakkam ak ay doomam yaa nga xam ne yàlla dogal nañu jiitu ak mboolem jullit bu leen fa fekk buñ fa fekk barke Xadim Moustapha alhamdulilahi rabbil alamin والزاد وهو التقى منها سلاحهم وهو الوضوء الذي ينفي النجاسات منها السراج بذكر الله جل علاه منها المطايا بهمات عليات منها العكاس بعجز والعزام لدى أهل الطريقة حزم بالحقيقات ومن لوازمها منهاجها أبدا وهي شريعة في بدء وغاياته ورفقة وهو إخوان لهم همم مع الوفاء بصدق في الأقوات ورفقة وهي إخوان لهم همم مع الوفاء بصدق في الأقوات والكل من جملة السادات سورة يكفي المريد مريدا ذا غواياته kullun min alxawmi cheikhun aalimun wariun minhum murabbin bi adkaarin wa di wax tuuti ci dund ki nga xam ne mooy sëñ Masamba Kanni mi ñu wooteel tey jii fii ci dëkkam bu tedd bi di Touba Darul Xadim di dëkk boo xam ni mi ngi ko goroon ci ndigalul sëriñ bu mag bi 1915 sëriñ Touba joxoon ko ndigalul sanc fi te booba sanc bi tàmbulee ci moom ndax aw jiwu la yor ñëw di indi ko ci sëriñ bi ne ko dama bëgg nga léemul ma ko ndax damay bay sëriñ bi ne ko foo yëngooren ak fare yi mu ne ko dama bëggoon a dem naawel de su ma demee wéttali soxnaa sa waalo baye fa sëriñ bi ne ko baax na lool de waaye ab dërëm wala tànk boo amee ci àll ci Touba moo ma gënal junni tànk yoo amee feneen maanaam benn tànk boo amee Touba moo ma gënal junni tànk yoo amee feneen fu dul Touba. ne ko demal wool ma Cheikh Mouhamadul Moustapha sama doom ak Cheikh Mouhamadul Fadilu ak sëñ Massamba Mbacke mu leen woowee ñëw ci la ko sëriñ bi digal mu sanc daarul xaddim gii sëñ Fallou sanc Ndindi Cheikh Moustapha sanc Tundodi sëñ Massamba Mbacke sanc daarul Karim. moo waral sanc dëkk bi foofu nag lañ ko wooteel ren jii di ko fa defal bis boo xam ne li ko waralit mooy bis bi nga xam ne sëriñ bu mag bi wan na ko rasulullahi booba sëñ Masamba Kanni dafa ñëw di ko tàggu si bëgg aji mag defar tool yi ba mu jekk itam lam ajoon lam bëggoon a aji mag yi ci ay toolam la ko doon bàyyee yoo xam ne tool ya ku amutum jàpp doo fa dugg maanaam ñii bay ñiy bay tool yi balaa kenn dugg ci tool bi da amum jàpp ba noppi ngay laab doog a dugg ci tool bi bi mu ñëwee di tàggu si sëñ bi nag ci loolu bëgg dem màkka sëñ bi joxaat ko rendez beneen bis muy guddi gàmmu bi mu ñëwee ñiy jàng ña ngay jàng di màggal guddi gi sëñ Masamba Kanni sëriñ bi woo ko wéet ak moom ci biirum néegu biiram bi mu ñëwee toog sëriñ bi toog léeg-léeg sëriñ bi jàng mu waaxibu lu bari léeg-léeg mu jàng mu xaddimatul am daax léeg-léeg mu jàng jës bul xulóob ba ab jamono perum penku mi ne dër daanu mu gis jëmmi yonente bi alayhi salaatu wasalaam di dox di ñëw nee na sëriñ bi di dindi ay kaalaam ba des boppum neen yonente bi sallallahu alayhi wasallam dox ba agsi sëñ bi toog ci kanamam yaari bëti woomam sosaloog yaari bëti woomi sëñ bi lépp sëñ Masamba Kan yi di fekke te dafa tàggu woon sëriñ bi bëggoon a dem Màkka sëriñ bi wan ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci lu dul muy génn dëkk bi wan googu mu ko wanoon yonent bi nag guddi googu la màggal yóbbu ko ci ñaar fukk yi ak juróom-ñett ndax guddi gàmmu kenn du ko xëccoog yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax dañuy màggal guddi gàmmu gi bu ñu agsee ci ñaar fukk ak juróom-ñetteelu fan bi di limub Tuubaa bi ñu màggalaat ci jëf jooju sëriñ bi jëfaloon suñ Masamba Kanni loolu moo waral bis bi tey qaw fi llahi malikihim xaalal is fi lbidayaati xawfu sanbi yasjuruhum wa fi nnihayaati ijlaalul jalaalaati minha talaasumu hadmin nafsi duuna riyan min kawniha zaata makrin wal xiyaanaati yarawna anfasuhum duuna alwara abadan wa annahum lam yaliiqu bilkaraamaati wa annahum afsaqul fusaaqi kullihim wa annahum lam yaliqu bil ijaabati minha talaasumu sabrin lil ilaahi ala jawril uzaati jamiican wal musiibaati kaanu izaa naabahum min nahwihim dararun taabuu ilallaahi min kusril xatii'aati ومن مناقبهم رضوان ربهم عليهم الدهر حزن كل ذاعات ومن سجاياهم خوف النفاق بدا خوف الفلوحات في أولي الغيامات منها تواد للقهار مالكهم والصدق والزهد مع تدهير آفات min hal tijaau ila rahmani fi abadin jalban wa dafhan bi inhaai shikayati asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu yéen mbokk yi ñu ngi leen nuyu ñëpp di leen sant bu baax di leen siyaare di leen jaajëfa tam ci bis bi tedd bi nga xam ne ko woote ci yéen ngeen ngeen wuy siñu ci te mbokk ak yéen eh, bis bii nag du bisub màggal bisub cant la ndax suñ maam yi nga xam ne mooy suñ bint suñ tubaa ca amuñ lu dul moom ca suñ tubaa taw féexaloon ko ci boppam ndax suñ tubaa ku jot ci moom moo la jotee ci boppam waaye kenn mënul jot moom ndax fa mu nekk kenn jotiwu fa waaye ku jot suñ tubaa rek suñ tubaa moo la jotee ci boppam moom nag suñ tubaa da ko taw fa da ko boole ci ñi nga xam ne taw féexal leen ma jot leen ci boppam bañ xam ci moom dara eh, ànd nag moom ci bari nag mu tërbiyu ko fu ne fépp fu suñ tubaab ma sa dëkk itam dafa dëkkoon ci wetam ndax li ko daan soxla moom moo bari yàlla dimbal ko nag bis bi nga xam ne moom la koy wooteel ci tënk di ko ci santale sëriñ Touba ni sëriñ Touba wootee sant suñ borom ci li ko suñ borom defal moom itam lii la ak njabootam di wootee sant ko suñ Touba ci li ko sëriñ Touba defal ndax maqaama ak kay mënta weesu ngay jaamu suñ boroom gis rasulullah ci sug dund ci bët bët loolu sëriñ tubaa defal na ko loolu nag ku antu sëriñ tubaa wala amoo ku mel ne sëriñ tubaa ku mel ne si moom sax amut wala amoo sëriñ tubaa mënoo am loolu moom nag yàlla dogal na am na loolu sëriñ tubaa li ëpp ci mag ñi ci suñu gëstoo bi ñu gëstoo ñoom ci ñoom wax nañ ne guddi gàmm la la ko woon rasulullah sallallahu alayhi wa moo tax ñoo koy watal bis bii di ko ci sant Serigne Touba eh, li tax ñu def ko ci ñaar fan juróom-ñett ci eh, weer wi weeru gàmm itam rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ab bisam kenn waru caa woote beneen bis bu dul bisu rasulullah sallallahu alayhi wa ndax bisu rasulullah boo xasee taxaw beneen bisu war taxaw lu dul nga fàttali ko rasulullah xam ne moom rek mooy yonentu yàlla bi nga xam ne moo mat leen lépp loolu moo tax nag. biñ koy e, gaa muñ ko génne weeru gàmm yi ñu tànn ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru gàmm yi loolu tamit tax ñu tànn ko ci pas-pas bi mu amoon ci Sëriñ Tuubaa rek ci ci ko tànnee ndax biñ ko tànn ñun xamuñu ko woon waaye biñ demee biir lañ xam ne ginnaaw arafi Tuubaa yi xam ne mooy mbégum bépp murit ak bépp jullit boo xam ne e, ëllëg suñu borom dogal na ci yow ak texe Tuubaa mooy doon seen mbég moo tànn ñaar fan ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru ci gàmm yi mu dëppoo ñaar fukki fan ak muy arafi Tuubaa yi ñu woote ko ci di ko santale sëriñ Touba sant googu nag euh, la ko Serigne Touba defal ba ak cant war ca euh, ñun ñi tam yàlla nañu ko yàlla defal ci sant gi ñu koy sant Serigne Touba bi jaay Xaadimu Rasuul képp koo xam ne teew nga fi ak koo xam ne kii gis nga ko fi teew wala nga yéene woon fay teew wala nga dégg bis bi ci commune ko ca euh, liñ ci wax ci moom nga dégg ko ñu ngi ñaan ci darajee Xaadimu Rasuul mi nga xam ne ñun duñ ñaan ci kenn ku dul moom ndax lépp ci moom la ne. ñu ñaan ci dara ya Xaadimu Mustafaa ëllëg ña Sëriñ Tuubaa di dëkkal ci di leen dëkkoo yàlla nañ ko yàlla nañ ci bokk bi jaay Xaadimu Mustafaa di sant bokk taalibe bi yëpp seen positif ak seen taxawaay di sant bokk itam ci wàllu organisation bi ak seen jàppandal ci seen liggéey di. sant site bi nga xam ne moo te du ko jël Tawfekh Production Tawfekh Tawfekh boo nga xam ne moom lañ tuddi seen site bi yàlla na yàlla def ci ñoom Tawfekh ju tax ju sax ñoom dakk seen ngirum dund bi jaay Xaadimu Mustafaa ñu ànd yokk ak man ca bañ a tële faw ci yàlla defal ñu ko ñun ñëpp jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah li rabbil xabiir asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginnaaw bi ñu leen nuyoo yéen mbokk yi bu baax a baax yéen ñu ñuy bàyyi xel fii ci biir réew mi ak bitim réew ak fépp foo xam ne mbokk mi ngi fa nekk di ñu bàyyi xel ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la siyaar di la jox sa way ginnaaw loolu it tey ni ngeen ko gisee nii ñu teewati ci bis bi nga xam ne baaxoon nañ koo def di ko amal at mu nekk muy bis boo xam ne eh, ñi ngi koy defee fii ci Daarul Xaddim di ci fàttaliku ki nga xam ne mooy sunu maam ju baax ji Serigne Massamba Kanni ki nga xam ne kenn la woon ci ëttub Seexul Xadim di fàttaliku bis bi nga xam ne Serigne Massamba Kanni lépp lum am ci Serigne Touba ci bis boobu la ko am mooy bis bu ama am solo ci eh, bépp jullit waaye bis bu ama am solo ci bépp doomu aadama ñu di ko fàttaliku fii tey yàlla def mu dëppoog bisu bi nga xam ne mooy alxames doon juróom benn fan ci weeru décembre fii ci Daaru Xadim di bis bi nga xam ne sëriñ Massamba Kanni ci la ko Cheikhul Khadim wanoon ki nga xam ne mooy sallallahu alayhi wa bis bi nag ni mu eh, ci ginnaaw leeral yi nga xam ne jiitu na yëpp yëpp eh, dañoo ñëw ci fii nga xam ne moo nekk ci wàllu waañ wi ndax it organisation bi mel na ci bis bi fu ci nekk ak commission ba nga xam ne moo fa nekk bu yàlla dogalee ñu nekk fii ci li nga xam ne mooy liggéey waañ wi commission bi nga xam ne ñoo fi nekk ginnaaw bi yàlla dogalee ñu defar li nga xam ne moo fi jëmoon ci wàllum teraanga yi ci wàllum gàtt yi loolu lépp nag li nga xam ne moo koy mot li mooy lii ngeen gis ñu nekk ci waañ wi nii muy liggéey bu ama am solo boo xam ne gaa ñi àndandoo nañ ko di liggéey ci liggéey bu mucc ayib di defandoo di jàppandoo nga gis ko nii boo gisee maanaam ñi ñëpp loolu moo leen tax jug nga gis ne maanaam rey nañ ay gàtt ak nag yu am solo yoo xam ne ñu ngi ko def ngir ñi nga xam ne ñooy gan ñi teew ngir eh, berndeel leen ci teral leen ci ba képp ku ñëw boo delloo da nga xam ne wax dëgg yàlla am nga fi sa yàlla am fi loolu moo ci ëpp solo ginnaaw loolu nag ñu wax ci organisation bi nga xam ne moo am ci waañu ndax it bokk na ci li nga xam ne moom lañ taal muy mbana yi ngeen gis nii ñu toll ci ñaar ki mbana ñaar yoo xam ne taal nañ ko yoo xam ne pour bernde la ak ñeenti mbana yoo xam ne pour li nga xam ne mooy dem ci kaw mbana yi muy soos bi eh, loo xam ne suñ bokki mbàkki mbàkki danañ ci kontaan lool def nañ ko fi mu nekk nii nga gis ndaw yi nga xam ne ñoo ko ñoo ñoo ko wër ñu doon ñu bàyyi seen yi te ñoom ñëpp ku ci nekk ñëw ci liggéey bi ngir jàppale ñu ca loola ñu ngi ñaan ñoom ñu ko def ñëpp ku ci nekk suñ borom subhanahu wa taala mi nga xam ne moo tax ngay jëf ak Seex Xadim ak Sëriñ Masamba Kanni dajaleel la ak loolu nga xam ne moom ngay jëf ci bu baax a baax a baax di sant mbokk yi teew yëpp rek nii ngeen ko gisee xam naa dinañ dugg ci biir waañ wi bu ko defee wan leen mbooloo mi nga xam ne ñoo fi nekk di jàpp ci liggéey bi muy ñoo xam ne dañoo bàyyi seen yitte jóge fu nekk ñëw ànd ak ñun ci liggéey bi ba tey ñu ànd koog mbokk yu bëree bari mbokk yëpp ku ci nekk tànki dikk yeeg tànki dellu suñ borom def ko yiw tey it jox la ko tey maanaam dencal la ko fu yàq eggul. maa ngi leen di nuyu seen tur ak seen sant ñëw ci fas yéene ànd ak Pastef ak laxasaay rek di ko suñuy maam daan defee ñu fekk suñu yaay di ko def ñu def ko rek fas yéene ànd ak Pastef ci wàllu waañ déglu ndigal di bàyyi tere def ñu def ñu bàyyi ñu bàyyi rek. fas yéene luñ fi jaamu yàlla yàlla ko yàlla nangu ndax ñiñ koy defal jar nañ ko te kenn du def ba rëccu góor ak jigéen mag ak ndaw ne ñëpp a laxasaayo rek kenn ku ne barke lu lu jégal bis bi rek la ñuy wut fu ñu fu ñu ne foofa foofa la amuñu nag fu ñu li ñu bëgg amuñu li ñuy bañ amuñ suba amuñ naaj suba ak ngoon suñu yëkkatee rek ñu jóg nu ngeen ko bëggee ak fu ngeen ko bëggee rek foofa la ñuy def ñëpp nag laxasaayo nañ ñëw <laughs> loolu leen tax a ñëw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 sëriñ Massamba Kanni Bousso ñi nga xam ne kenn la ci jàmbaari Seexul Xadim radiyallahu anhu te sun e, Seexul joxoon ko ndigal mook Seex Muhammadul Moustapha ak Seex Muhammadul Fadal ak sëriñ Massamba Mbacke moom ñeent ku nekk sañ ci ab dëkk sëriñ masamba sañ dëkk bi nga xam ne mooy Daarul Karim ca nekk fii ci ginnaaw Daarul Xadim sëriñ Moudou Moustapha sanc tindoo di nekk fii moom it ci kanamu Daaru Xadim Serigne Fallou sanc Ndindi moom it nekk ci kanamu tindoo di muy ñeenti dëkk yoo xam ne nii boo ci taxaw rek di gis morom ja kon dëkk bi am na caslaay ci ndigal lañ ko sañ ci ndigal Serigne Touba tey jii nag njaboot gépp dajee fi ngir lan ngir fàttaliku kii nga xam ne mooy Serigne Massamba Kanni ci bis bu màgg bi nga xam ne moom la ko Serigne Touba tawféexal woon mooy bis bi mu ko wane woo ñoo bi alayhi salaatu wasalaam te tombe woon ak bis bi nga xam ne mooy ñaar fan ak juróom xëytal wi gàmm tey nag mbooleem ñi nga xam ne ñooy taalibe ak mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi nga xam ne ak sëtam yi nga xam ne ñoo la fi bàyyi ñoo waajal di def ak màggal goo xam ne nii dañ ko ci fàttaliku ak di ko ci ñaanal ak di ci fàttaliku tawféexu joojee nga xam ne Seexul Xadim radiyallaahu anhu def la nokk ñuy wax nag ci wàllu li nga xam ne moo jëm ci wàllu organisation bi ndax boo ko seetee mbir moo gis mu ne dafay am nisaam mooy tax mu mën a dox boo gisee lépp rek boo ñëwee euh, nañ ko def ay pàcc pàcc am na nag ñu nekk ci wàllu culture nga xam ne ñoo yor wàllu waxtaan yeeg yi ci aju am na ñoo xam ne ñoo nekk ci wàllu dalal gan yeeg toppatoo leen am na ñoo xam ne teraanga yeeg tawféex yi nga xam ne moom la ñuy waajal di ko jox gan yi ñoo ca ne ku nekk daal am nga loo xam ne nii yaa nga ca di ko di ko di ko def ci wàllu organisation bi nag lii ngeen gis lépp rek ci loolu wàllu googu la jëm ndax boo gisee tey ji euh, maanaam euh, lépp loo xam ne daal gan bu ñëwee danañ ko teg ci condition yu baax defar nañ ko waajal kër gi la ca war a am ci ay matukaay yëpp ñu teg ko fa ngir gan yi gën a nekk ci euh, la nga xam ne ni daal dana méngoog ñoom ci loolu tamit barab bi ngeen gis nii ci wàllu organisation bi la jëm nga xam ne yaakaar naa suñ kéem kàttan def nañ ko ci ngir mu mën a dëppoog li nga xam ne tey jii ñi fiy ñëw suñu egsee ci bis bi ñu mën fee fekk barab boo xam ne waajal na leen ko pour lépp loo xam ne nii daal gan dana ko euh, ak dëkk dana ko defal ak ganam ñu defal ko ci loolu nag ñi nga xam ne ñoo ko seq ñëpp euh, toppatoo nañ ko ba mu jaadu ba nga xam ne daal la ci war a nekk lépp wax dëgg yàlla euh, def nañ ko ca ci wàllu googu tamit ba tey li nga xam ne mooy waajtaay bi mu jubsee bépp matériel boo xam ne ndax dëkk bi xaw naa xëcc diggante moom Touba mën na juróom-ñaari kilomètre lépp loo xamante ne si ay matériel la yoo xam ne nii daal nit buñ ko indee ci dëkk dana tax lam bëgg ca dëkk mu jàppandi indi nañ ko fi ci wàllu defaraat dëkk bi seetalaat ko defaraat lamp yi defaraat ko ca ñoo ngi ñaan tamit li euh, nga xam ne mooy maire bu Touba ak ñi nga xam ne ñoo seq liggéey bi ñu jàppale bu baax a baax ndax dëkk bi tamit dëkk la bu màgg boo xam ne wax dëgg yàlla ay aw askan woo xam ne si daanaka ñoo fi nekk euh, di fi euh, dundee seenu ñax di fi jaam yàlla kon lépp lu ab dëkk bu mag di am rek suñu sañoon suñ dëkk bi am ko kon daal ci gàttal mooy organisation bi daal wax dëgg yàlla lépp jaar na yoon lépp lu ñuy def ci ci waaj waajal bis pour mu mën a nekk ci condition yu baax def na ko suñu bis bii kon nag dañuy sant rek ak di gërëm ndax dafa mel ne waxtu bi dafa xaw a gàtt waaye daal nañ xam ne daal képp koo xam ne dénkoon nañ la responsabilité joxoon nañ responsabilité ci liggéey bi nañ ko bëggee defee nga defee nga noonu dañoo toll nag ci jamono yoor-yoor gi waaye incha allah bu ñu ba ci euh, takkusaan gi danañ ci def benn cérémonie officielle boo xamante ne si jullit yeeg taalibe yeeg mbokk yëpp danañ fi teew su ko defee sëriñ bi tamit jox ñi nga xam ne ñooy def kàddu yi ñu def ko waxtaanu am solo euh, weccoonte ci ay xalaat su ko defee tamit mboolem koo xamante ne si euh, ñëw nga ci rek incha allah da nga ci mën a jariñu loolu daal mooy li nga xam ne ndax maagal gi màggalu ci la rek suñ demee ba ci euh, euh, timis gi tamit Serigne Cheikh Namba dana fi amal waxtaan dana fi am jàng yu am solo waxtaan bi tamit suñ gànda ministre moo daal organisation bi daal wax dëgg yàlla fii ñu toll nii daal macha allah dañ ñaan yàlla rek mu mottali ko ba nga xam ne lépp daal dana jaar ci yoon barke Cheikhul Khadim barke Serigne Moussa Mbacké Kane مستنسين بأسكار الآيات يا ترى ليلى نودى بقيام مستنسين بأسكار الآيات حدث أمس الرموز لا إله إلا الله أشد إني ودنا في المقالات قوم بأسلحتي أداء وقهر أتحلوا أساليا والكرامة قوم بأسلحتي أداء وقهر أتحلوا بالمساليا والكرامة أركان بيت جميع الخوف أهدى لا يوشى

بك برهنا تنزل على نقبة خدم هذا خوف بدنا الشعر قسم دواما بخناء نقبة خدم هذا خوف بدنا